Bang Cerno kitaani wa qaada lii manaafi al awtaani jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bi nu nuyoo ñëpp te di leen ziar di yeew nuyoo bi ak ziar bi ci sëriñ Ousmane Mbacké moom Baye Cheikh Khady responsable moral bu diwaanu Bamba fépp feggoo ak jëwriñ ñaar bi sëriñ Ousmane Mbacké borom baax ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñu ngi di ziar Mbàkke te di leen jox seen wàccuwaay di door suñu kàddu tey ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir Anta Ñang mi toog toogaayu borom Daarul Muxti mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal suñu jàmbaar ji le guide de la révolution pacifique moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñi ngi ziar ñëpp di wax ne li waraloon daje bi tey ñu amaloon caravane bi nga xamante ne at mu jot bu weeru Shaaban bi taro teroo diwaanu Bamba fépp di ko woote fii ci Parcelles Assainies jublu ci lan moo yëgle fukki fan juróom ci weeru Shaaban muy bisu màggalu borom daarul moot muy bis ba sëriñ bi daje woon ak rakkam ju baax ja mu Ceerno Ido Faati ca gannaaw tukki loolu moo sababoon caravane bi kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziyaare ñi fi teew ñëpp di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxo kilifa gi kilifa jotaay gi sëriñ Ousmane Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Khady Mbacke ibnu borom Daarul Muxti di la responsable moral du diwaan Sirkul Jawaahir fii axbaari sarahir di ci teg tamit jëwriñam ji sëriñ Ousmane Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni di ko joxaat wàccuwaayam mu gën a tedd di ziyaar ñi fi teew ñëpp wax dëgg yàlla Euh, xëy na ki ñu jox kàddu gi ci moom lañuy mujjee léegi waaye ñu ngi ziar euh, secretaire général bi jëwrin Muniru euh, di leen wax ni itamit am na délégation bu fi teew ci turu monsieur le maire Moussa Sy wax dëgg yàlla jëwrin sanoor Baar jiite ko ànd ko ak jëwrin Omar Far Omar Tall ak jorin Lamine Gueye mi ak pap jagne ñom ñi ngi won depuis sank mbacke itamit di len xamal ni wa akhlu khasida parcel euh ñomit ñi ngi fi tew sen yang ñi ngi ni jorin khadim Gueye mo jité mbollem akhlu khasida parcel dañuy amal bisu khasida parcel yi fi. ta amna ci bo xamne sax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni la mu don parrain bi di leen ziar bu wér di leen jottali ziaru mbokki taalibe yëpp di leen dalal fii ci Parcelles Assainies tey am mbégte lool ci teew gi nga xam ne teew nañ fi ndax liggéey bii nga xam ni moo doon caravane bi bañ koy tàmbali amaana wéetoon nañ ci lool waaye la ko Cheikh Abdoul Ahad yàlla radiyallahu anhu daan waxee rek dëgg moom boo ci nekkee doxal rek bul soxla mbooloo boo doxee ab diir boo gestoo seen mbooloo sa ginnaaw looloo dal daal tey kon ñu ngi sant bu wér ci seen teewaay di leen ñaanal gudd fan ak wér te di leen ñaanal it li Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni namm ci ñoom ba di leen liggéeyloo yàlla nañ ci am ndam lu wees njort te nu dimbali ñu baaxee ñu ñu ànd kook ñoom. yi ñu nekk di parcelle te jëwriñ Modou Ka jiite ko ak mbokk taalib yi ñu ko àndal yépp yaakaar naa li mu wax ñëpp dégg nañ mbooloo mu dox mu ne du jëwriñ ca ñamu àndal ñoo am Pastef moo tax mbooloo mi dox. man nag li mu leen di soññ mooy yéen waa parcelle dangeen mës a nekk ci mbooloo référence u diwaan bi ndax parcelle booy xool mën nañ ne bokk na ci li jur FED fédération des élèves di diwaan ndax ñoom jëwriñ Alioune Joxaane fii nañ tàmbale woon jëwriñ ndongo moo leen yar ñun ñi suñuy mbooloo zone 7 dañuy tàmbale ñoom ñoo doon ñëw di ñu jàppale ci guddi àjjuma ndax mbooloo mu jurle ay mbooloo la ci kër gi bon loolu dañ leen koy fàttali waaw yéen dafa am fu ñu leen yi séntu ci sell ci sellal maanaam ci jëf ak ci organisation mbooloo mi nag lii mu jël initiative def ko day wane ne bokk ngeen ci mbooloo yi am vision bi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bëgg ndax lii mooy mission diwaan bi œuvrer pour Dieu à travers les hommes mooy fexe ba nit ñi di leen fàttali li leen fi indi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyahbuduni loolu na fi bàyyi waaw wa maa xalaq naa samaa wal arda wa maa baynahuma laa'ibin yàlla wàcce ñu fi ngir ay fo daf ñu wàcce pour ñu jàmm ko te lii ñu def léegi muy marche bi dama koy wax jëwriñ ndongo sànq dafa am ay jëf yu kawe yu diwaan bi doon def xat-xati jamono tax ñu wàññi ko waaye loolu erreur la ci ñun ndax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni visionnaire la day gis lu ñëwgul xam jamono mën jamono yore liy saafara jamono marche réew mi at yi ñu génn marche def fi xew te ñun ba ñuy marche 99 97 marche xawul woon ci réew mi waaye li ci doy waar mooy léegi nit ñi fu ñu marché pour ñaxtu la kese ñaxtu kese dem nañ ba réew mi fu ay nit dajaloowee mbooloo sax bu génnee màggal yi pour kaas la looloo am ci réew mi fi mu ne nii yaakaar naa ñun tey lii ñu fi def wër parcelle ku ñu gis ñu nekk yi ndaw mel nu ndaw war a mel ci correct ci lépp waaw di dox ngir fàttali nit ñi yàlla ak yenent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yaakaar naa loolu dafa war a bari ci réew mi jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cant ko tedd ki ko jaarale ci jëm ji nga xamante ni bii bu ñu xamee dayoo ku tedd ki xam niñ koy jàppee ak niñ koy toppee xam niñ koy dundee ci biir ak ci biti mu jëm si Cheikh Ahmadou Kara kon yaakaar naa cant gi jëm ci ku tedd ki bu jaaree ci moom ci lay gën a bég ci ñun moo tax ñu jaarale ko ci moom maa ngi jéggulu kàddu gi kàddu gi benn kàddu la muy kàddu Serigne Ousmane responsable moral di suñu bàyyi di suñu ndijaay moom lépp la doon ci ñun bu fi teewee mu ngi mel ni jëmbi Cheikh Ahmadou Kara mi ngi fi kon ñun amuñu ci kàddu jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وصلى الله وسلم على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما وجه كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا ما يكتي سمي كادو waaye cant gi nga xam ni moom laa war a sant cheikh muhammadul muntaxa ak cheikh muhammadul bashir ak ñaan ga nga xam ni moo cay topp lépp dama koy jël tënk ko ci jëmmi cheikh ahmadou kara mbàkke nooréy ni di nuyu nag bu baax mbokki taalibe yi fi teew yépp di ci jiital jëwrin ndongo jaw ci ni nga xam ni noonu la ko ñi fi jiitu ñépp waxe te itam yàlla def muy lu nu xam te dund ko ak moom te ni ngeen ko ko seereele mën nañ ko ko seereele noonu kon sëñ ndongo ñu ngi lay nuyu di la bu baax ndax bis bi moom buñ fi taxawul itam ñu fi taxaw ñépp mën nañ koo taxawee jëw tàmbalee ci jëwriñ donga jaw ci jëwriñ muniru ba ci yow mi ak ñeneen ak ñeneen li ci war lépp ñu def ko rawatina nag bi nga xam ni sëriñ Ousmane mi ngi nii sëriñ Moustapha bi muy ñëw fii ci kër gi la jóge fekk naa fi sëñ Abdou Khoudous ñooñu ñëpp kenn ku nekk mën naa taxawee mën naa taxawee bis bi waaye pas-pas bi ak yéene ji ak rafetaay bi nga xam ne moom la bis bi rafet moo tax ma am yéene yi ñëw fekk si koog yéen waaye yaakaar naa ni sama teewaay amul dara loo xamante ni bii dina ko yokk ci pas-pas bi nga xamante ni bii moom ngeen am ñàkk fee teew it du ci wàññi dara waaye nag ñëw ànd ak yéen bis bi ànd ak yéen mbég mi loolu mooy li nga xamante ni bii moo ñu yëkkati